hee Ousmane ku ko songu sangu Ousmane ku ko songu sangu Ousmane ku ko songu sangu tey de sangu nga ba xalagu sa biir lëfal nday tey ku ne ma baal ko bu ma kattee sa nday partagé leen mu yëg laay tey ma xar ndayu dëkk bi xanaa yi dégg na dof ku nekk ci yéen na jël bi parce que dix personnes mu gaaw ñëpp ngi seetaan ñëpp Sénégal a ngi seetaan réew maa ngi seetaan asee ngi seetaan xoolal ma fm lii mooy TFM maanaam ku nekk da nga am sa domaine man dama bàyyi woon kaa yi mais bu ma jógee Sénégal dañuy jóg parce que lii man lañ ko xamee moo tax ku nekk mën naa live mais man bu ma taalee sama live addunaay ñëw ku nekk ak la nga man tey lay téegal sa ndey dugal la sa biir data yaay roqo yi si jor jeey lu la metti woon boo tëddee nelawal Viviane Chidid lu la metti woon boo tëddee nelawal Ama Baldé lu la metti woon boo tëddee nelawal Tapha lu la metti woon boo tëddee nelawal kii lay xar data ndayam partagé kooye mi ay waay kooy soko non stress yi batan se bu fanaan so ko yaasal tey kooy sa koy bi di mën ab ab waay yow kenn xamul ban façon kooy nga yore soko no stress tey lay kat sa ndey de tey lay maam Ndiaye Savon am na ndam Viviane Chidid am na ndam danan danan danan maam Ndiaye Savon dunan dunan dunan non non non dëgg nanan nanan maam Ndiaye Savon Savon am nga ndam Viviane Chidid am nga ndam ah laay tey ma kattu ndeyu àdduna bi eh ma ne yéen ku nekk ci yéen na jël live bi partagé ko dix personnes bu leen ma yëngal waaye partagé leen ndeyu lii cinq mille personnes six mille personnes jëm kaw quoi j'ai pas envie de parler trop il faut partager le live même. salaamaaleykum salaamaaleykum. ok partagez le live bi mu gaaw. ka am na tëjal sa lëf li ngir yàlla. <laughs> waaw kan Aki Aki yow je vais t'enculer t'es un malade quoi. ok partagez le bi ku nekk ci yéen. na jël live bi mu passe ko dix personnes mu gaaw. salaamaaleykum Ka. na gaaw tuuti ah, nee naa sa bàll ngay def da ngay génn si biti de ba ma pare ok partagez le live bi mu gaaw ku nekk ci yenn na ko passe dix personnes. ana Sidi man mbaa diaspora deux cent vingt et un taxaw na diaspora deux cent vingt et un yaa ngi fi defal présent. seen bës defal présent Dakar laay présent Feeling Dakar présent People Dakar présent Dakar buzz présent TFM présent Sen TV présent dee leen ma bindal je suis présent askanu Sénégal baa ñëpp a ngi fi baa ñëpp a ngi seetaan koy noo so ko noo stress wu ay waay lii ma ko waxoon du ko gëm soko ñaari yoon ñett so ko ne ma adama waroo xas kenn dangaa génnee say koy waaw man maa jël samay koy ba mu neex ma ma simmi ko ci live won ko Sénégalais yi mais jigéen jigéen di ma capture d'écran may mballu di kol data bi jàpp sama koy bi naan ko nii mu may filme arab yow looloo la dal tey man loolu duma ma mas dal parce que je suis très intelligent samay koy ku ko gis maa ko génneel sama bopp maa taxaw ci live wane ko mais man jigéen du ma capture d'écran man may jël samay koy di def nii wala may kattante wala may def n'importe qui ñooy vidéo non non man je suis très intelligent waaw Soko no stress ah borom Barcelone xamoon nga ne dinaa toj sa cottu nday roqoye si sa yaay roqoye si di bëgg a dee munta am dus bu mu dayee sa yaay jël na eh, eh, eh, tefesu yaraax gi yëpp day ko yéen waa yaraax xam nga ne sa yaay ama na leen àq yaayi Soko no stress buy day ca gëj ga lay dayee di dayee ca géej ga jën yi ay bu bu waa yaraax bu di lekk jën bu nu xëccee jën yi ba muy gën mook dayu yaay Soko no stress ñooy ànd am na ñoo xam ne sax dañuy ordre de cervelle seen jën yi pour pour xetu dayu yaayu soko stress di dem ñu doog lekk sa yaay ameen àq nit ñi seesu angale sa yaay mos see toog xamuñ sax nu ñuy dayee man damay ragal nga indi ko Europe mu toog ci seesu angale bi foog na day tukki yaa katt sa nday bilaay soko yaa toj sa lëfal nday fii nga mujj appel vidéo doomu toj lëfal ndayam ji mu roqoye sëy tey lay xar sa data nday Afrique mon Afrique Afrique des fiefs guerriers Afrique que sente ma grand-mère au bord de son fleuve sa digg data nday jër jër na lay sa roof ko sa data nday mu naan kiti saa yaa bola ya yaa duree tee tee sabu suy sabu ruusi tey lay dëgg sa day bu kenn wax so ko tey ma lekk la ana kocc wuyu leen ma kocc yaa ngi seetaan su ma la waxee ok rek dugalal site bi laa bëgg nga bindal ma ko sénégalais yi xam ko parce que dang koo sensé su ma la joxee ok rek dugal bul bind Sokono stress nag mi ngi tudd Malick Diop numéro téléphone bi jox naa la ko cey gars yi dama leen di nettalil kaa bi ni mu demee bala ma ñëw bon gars yi xam ngeen kaa bi nan la demee lii lépp nag ay plan joor jéy la ak ki nga xam ne moom mooy mitu xam nga Soko dafa bëgg jigéen xale bu jigéen bi ñuy woowee mitu day jaay ay fer yaa ngi dégg ba mu yebee uh, Dior Dieye Dior Dieye da koo yebal pour mu piéger ko mu dem xam nga co dafa ndaw si dafa ñëw bëgg Soko ndeysaan topp Soko bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg ko ba Soko yaakaar ne kii da koo nam muy jaay ay fer nag paren saa yi xam nga mu takk ñaari fer xam nga jar jali nii def ko nii def ko nii xam nga paren saa yi mu mu patal weeni nii génnee ko nag xam nga xam nga loolu so ko day rakkaaju xam naa jigéen gi naan ko génneel sa bopp koy bi noonu la ñuy def bu la bëggee daaneel j'ai dara ngay siñ rek ba ma gisee sa daan yu bëri yeeg sa koy bi kabar taxaw laa xam ne lii koyu nokk so ko nooy saret yaa faraqub koy ku xool sa koy bi xam ne yaraax la jógee doomu xaj sa koy bi desatul dara lépp jën yi noosee nan ko waxu naa la ñu jaar ci gaal yi wéruñu ku bokk ak jën yi voyage doo am xel yow nit ñi di jaar ci avion yu tedd yi di ñëw yow nga bokk ak yi voyage ay rabu àll yi di di ànd ak ñoom di voyage kaña yeeg mbott yeeg géej yeeg si ndax yi loo romb ci géej gi yóbbaale ko ba ni ngay yegg see Espagne ñu roxas la ba nga sot solo la benn ma dëbb ko ba mu mokk sokono stress ndaysaan ak tanaan deux dents ak koy ba joor jeey xam nga ne tey am nga ndam Viviane Chidid sama yaay ji ku la kat na ndayam maam Njaay Savon tanan danan gëndang dan maam Njaay ay amati nga ndam amati nga ndam Viviane Chidid amati nga ndam joor jeey am nga ndam sey joor jeey borom bari man dama na yow jubawul waaye damaa kontaan ci yow parce que soko noo stress ku ñëw mu xal la ñi ngi naan soko dara safu ko daraa ko saf nag yow nan la lay jigéen di woowee nga génnee sa kanam jël sa banaana bi nga xam ne nii moom la la yàlla euh, euh, euh, dégg sa tànku liir bi nga ne ko pëy pare na téye ko naan turuj turuj yàlla na ma ci yàlla musal man aadama loolu nit du ko mës a ci man déedéet su danaan taxaw ci live bi naan man taalibe Cheikh laa lenn laa du def du ma tux du ma naan sàngara fal ndey foto booy tuxe soo ko yaa mën a fen xaaral ma ñëw lekk sa lëfal ndey lii lan la nga ne doo tux doo naan yow yaa kat sa ndey soko sa ngaam yu dugg yi porte oto doomu xaraam jeeg sa bakkan bi na poset yow yaa dëgg sa ndey sa jëb di mel ne r bu gaare yenu katu dàmba yi nga may niroog baara ñi yi ñuy taxaw génn dan di génnee jën yaa dëgg sa ndey tey laay xar sa data ndey dugal la ci biir data euh, roqee si tey ma wal sa dayu ndey ba mu mel ne ripaasu xar bu ma kenn ñaan wuy ma sénégalais yi yéen yi nga xamante ni gisu leen vidéo yi sama Instagram Adamo bos day Negri te mu am cent soixante dix mille abonnés Adamo Boss Dey Negri te mu am cent soixante dix mille abonnés dem leen foofu dinaa leen ko taal live tamit wan leen vidéo soko yi buñ ko bolekee sax baax na mais dinaa leen ko wan Adamo Boss Dey Negri laa ci bind cent soixante dix mille abonnés la am bu leen ko jaawale dinaa leen vidéo yi foofu kocc commencé nga dugal nga yónnee ma léegi ma jox ko gars yi léegi-léegi ñu dem seetaani ko parce que man TikTok bii la laa laa dese TikTok bii mënuma faa partagé ay koo yu soko fuy soko di mballoo mënuma ko fi partagé sama noon yi di ma bolake buñ ma bolakee man tëgg ko man damaa yàggal liggéey TikTok bi def naa ci lu ne man tëj nañ sama ñetti compte saa yu ma tëjee damay jógaat mais mënumaa jël sama compte di ci wane ay koo yu soko non non dan may bolake Instagram Adama Boss day néegi te mu am cent soixante dix dinaa leen tegal vidéo yi euh, su ma jógee foofu Euh, dina dinaa wax kocc mu dugal kocc xam naa mi ngi en ligne man lay xaar ma ne ko ok xaaral ma xool ndax mi ngi en ana kocc wax nga dëgg yow joor na ma ko fàtte woon nee na du naan sàngale nee na du naan sàngara verre baa ngi nii veeru sàngara baa ngi nii ba muy génnee koy ay waay Sokono SRS signe nag ndeysaan xam naa daa gëj a gis lëf daa gëj a kat xam nga kat yu métti rek boo yoree ci màggatum tubaab yi ñëw daj ci meeru tubaab njëkkamte pour ñu mën la ay kayit xam nga rek dafa gëj a kat moo tax ba mu gisee feru feru feru booy bi génne koy bi génne tànku liir bi ak 32 dents yi nag yaa kat sa la fa ndey roqa yi rusloo nga waa yaraax rusloo nga kër roqa yi si askanu yaraax gi yëpp mer rusloo nga neen yaa toj sa lëfal ndey ak sa koy bi mel ne euh, jaan junu siddi so ko yaa dëgg sa ndey wuyu ma damay woo mitu mu la ma nan la PSC soko ak nan la ko dikke mooy xale bu jigéen bi dama koy woo téléphone laaj ko nan la demee ak cas bi nan la la dikke li tax soko génnee ngeen xam histoire bi pare nag ñu dem partagé koy yi gars yi tas ko fépp ñu tas ko fële na dem Asie na dem Amérique na dem Canada na dem Europe monde entier na fa kooyu soko no stress dugg war leen la ko àdduna bi man moom xam naa ne àdduna di doon ko wër ndax bu subaa incha allah ma toj Sénégal man xam naa loolu maay réew mi damay woo connecté joor mitu boo ko mënee wax mu wooma mitu boo ko mënee wax mu wooma na ma alaaji pambaay dinaa la jël sasa dinaa la jël soldaaru maa lay jël dinaa jël yéen ñëpp gis naa leen yéen ñëpp dinaa leen jël dinaa leen jël incha allah xaaral ma womitu allo mitu mitu maa ngi ziar ba de la woo maa ngi jéggalu ci dérangement bi de boo mënee yokk sa baat dina baax sénégalais yi ñu ngi lay seetaan ñoom ñoo bëgg a xam kooyu nokk sokono stress nan la la affaire bi dikkee ba nga pièce ko ba mu génnee tànku liir bi ci biti askanu sénégal di ci teg seen bët point par point aja ñi ngi si jàmmoo bu baax sénégal a lay déglu askanu réew maa ngi lay bàyyi xel waaw man loolu la ma wax du bëri. waaw. Euh, bon loolu yëpp Georgie nag moo ko waral moom moo ma yónni fii Chocolat stress. Georgie waaw. après ma dem. Uh-huh. dugganteeg moom di saaga joor di saaga. di uh-huh. saaga ñëpp daal. Hmm. par la suite ma ma nekk ak moom genre genre bëggante. waaw ak noonu. waaw. ma won ko Béthio mu summeeku. ah jot nga ko woon Béthio. ma won ko fer mu génnee tànku leer bi. <laughs> mais wanoo lëf wanoo ko wen. déedéet. ko won ak fer. mu génnee tànku liir bi. waaw daa gëj mais mitu yaay bandi. mais ba mballu ba mballuwul ba daanu yow. mballu na ba daanu kay ba dem pomp ko si douche bi ba dem raxas. ah. Uh-huh. ndeysaan daa feebar daa gëj a daan daa yàgg baar solo nag te bar bare jabar jim takkoon dégg naa sétitu la fii daa jeex data baa exprimé mënatu koo kat te sa kan la kat keneen du déplacé wu du génn. kooku kooku dinaa la woon fa sa jabar ji mais. lii nii bëgguma woon sax ñu génnee vidéo waaye moom moo dem dugg si live bu Awoushkity ju bokk mm-hmm. ñu def seen coalition saaga joor loolu moom njëkk a metti cëm nga fexe ba mu génne tànkulee bi waaw ah, gis daal sa liggéey rafet na yeneen yi nga denc nag muy photo jabar ji ak euh, photo doom yi réserver ma ko xam naa à tout moment dina ñëw ci man mais réserver ma ko en attendant d'accord jeex na yow xoolal seen liggéey rafet na fexe nga ba ñëpp gis kooyu soko soko fexe nga ba ñëpp gis na muy mbaloo ak na muy signé ak na muy di ko loxo bi di ko dugal ca koya kon yow seen liggéey bi nga doon liggéey rafet na Sénégal amuñu sa fay bitu ñu ngi lay jaajëfal dégg nga. d'accord jërëjëf cey bitu koy bu ne yaa ko mën a génne de koy boo génnewul baaxul léegi ana Kocc daa mel ne moom mooy bind nii de Kocc yow ñafal vidéo yi yow jëru nga may xaar yow dugal rek gaa yi seetaan yow bindal ma seen yi rek ma wax ko gaa yi kattal day yëpp soo ko jërul baax Viviane Chidid Ndour wal naa sedd soxna Dior Dieye fa tabaarikàllaa soxal war naa sedd soxal war naa seeg sunu yaay Fatou Lawbe Fatou Lawbe yàlla nga gudd fan xale mag du ko yëpp xale du yem mag déedéet xamoon nga ne ay tànku liiram dina génn koo yi sokonoo stress yi ndeysaan soko nag alaxira yóbbu la ba Europe nga def fa six mënoo ko amal kër gu baax mënoo ko amal dug su dayukaay teg ci tekkal ko naqar bi gën a métti mooy nga def ba Europe di génnee say koy naan da ngay ballu di wër di ballu ci jigéen ñi yaa doxaan sa ndey sa yaay roqo yi di day ca géej ga bul añee du lekk bu dayee du laabu bu sawee du am lu mu ngettee ko yow yaa toj sa lëfal ndey soo ko yaa yaa toj sa lëfal ndey sa kër yaay gis nga na mu mel comme fu ay kañ a dëkk sa duusu yaay yi boo ko gisee day mel ne foo xamante si nii ay élevage dañ fay gàdde yow yaa doxan sa soo ko yaa ci sa yaay doomu xaraam ji sa yaay gis nga sër ba mu woddoo ah c'est sérieux le 1980 laa ko gëjoon a gis loolu mel ne euh, euh, ku ni yow yaa téegal sa ndey soo ko yaa bon ci sa yaay doomu xaraam ji tëraloo sa yaay toroxal nga sa yaay toroxal waa yaraax toroxal sa pap li ma gën a métti ba gën maa metti nag ngay wër sa koy bi nag di mballu ci jigéen ñi sa yaay di gën a dee te dafa feebar yaa toj sa lëfal day su ko doo rus gàcce du la day yaa daqaar sa ndey nday ko ku la gën a katt ndayam amul yow kay dagg sa koo yu bàyyi def ko raakoonu si saa opéré sa dambal yu bàyyi def ko sarbon si saa rek a baax di kat sa yaay ngay ëpp yow yaa téegal sa ndey doomu xaraam ji dinaa daamine sa lëfal nday tey tey rek ma sarax ndikoo sa da jaw nday doomu xaraam ji kii ku aw doxatu ndayam mu jël ku katt ndayam mooy soko no non stress daamine sa lëfal nday tey moom laay def te kenn du ñaan doomu xaraam ji sa kanam gi dem gopp yow yaa tegal sa ndey ku gën a bon soko amul ci àdduna bi kii moo bon xaaral ma jël ay quelques personnes après ñu dajee Instagram moo wan leen koy nag maanaam vidéo yi ngeen seetaan ko en live live and direct. kon dégg nga. yoonu pauvre new ci wàccal yow. waaw ah, ok merci beaucoup alaaji Bamba yëkkatil kàddu. Adamo. waaw. Soko dafa ñëw barki démb. waaw. ne man lay ruube. aadamoo nañ ma bàyyi man wàllewu laa ah. man je suis wàllewu ku ma tooñ daanu sa ko dafa bàkk Viviane ah. ma dugg ci lay fam ne ko bàyyil Viviane yaa ngi laal ku baax ah. yaa ngi laal ku rins yaa ngi laal garmi yaa ngi laal ku jàpp ñàmburam ku tooñul kenn yaa ngi laal koo xam ne zéro faute sans kenn mësu koo waxal lu ñaaw ak lu bon Soko xam naa loolu metti ko bërki démb may live sama live teg samay jën di ko waas deux de temps teg samay faatulaw beeg samay kinelam so ko yéeg lay ruube ci biir live bi naan ma pambaay sénégalais yi nee nañ kan mooy góor jigéen bi gën a mag biir Amérique waaye xam nga lu ma ñëw tey so ko yi nee nañ ban sénégalais moo gën a ñaaw kooy ci Europe koy bi ni mu mel. ban sénégalais moo gën a ñuul kooy ci Europe. so ko yi nee nañ ban sénégalais moo gën a tilim koy ci Europe. soko ko yi nee nañ ban sénégalais moo gën a sew. sa su yow yow yow sa cuccu bi sa wax ju rëy ji ndakate te ko li ngay wax naan sama kooy bi sama kooy bi ndakate cuccu nga yor so ko léegi laa xoolaat vidéo yi. mi ni ma jàkkaaroon mais moom kooy sa bopp kooy bu ñaaw bi. dara sanak Béberasa yow dinaa téegal sa ndax yow yaa ma woon bi fajar may nga yónnee ma ko yow. Béberasa Pambay. ah. soo ko koy bi daa mel ni daa waga kenn xamul lu ci nekk genre picc yu ndaw yooyu. ba pare dafa weex sanguwul. waaw sanguwul. kooy weex. soo ko kat ndeyam kooy soko bi bi dinaa bee jaaw. ba pare néeg bi soo ko tëdd. néeg bi soo ko tëdd kii kay leeta bu ko wane appartement bi néeg bi moo tax muy toog ci waañ bi moom mas nga ko gis muy laay bi ci kër. ay man soko. soko lu la jaral bi so ko yow ngay géer ak sénégalais yi en tant que sénégalais bu toll ni yow war a muus kuy géer ak sénégalais yi dangay ngay muus sene war so ko war ngaa taxaw déclaré sénégalais yi ennemi sénégalais yi nga xam ne kaa rek la ñuy wër so ko nga war a nëbb sa kooy yi so ko wanuñu la data so ko sër lañ la woon ak fer nga génn sa kooy bi moo so ko buñ la wonoon data xanaa da ngay juutu ay so ko aada moo nag aada moo nag am nga ndam nee na buy géer ak yow day esati say kooy nga mer fu mu la estate rek estate ko. non man fu mu la estate estate ko. man dama ko dama koy topp sax moom li ko dal ak man li ma dal am man dan maa waxal dara ba génne samay koy mais jigéen man yii kenn duma ko def. kii do yow xamoon yow xamoon nga ni yow xamoon nga ni soko stress. kii wéru xamoon nga ni dinaa la tontu. nee naa la ñi keroog ba nga yéegee ñi jaar ci gaal yi nan ma nan ma baal du ñëpp de mais ñi si jaar ñëpp man maa la ko wax tey ku ci doful dese nga xel billaahi. dañ leen war a yóbbu psychologue dañ leen war a yóbbu psychologue jën yéeg sox soxóor yi ak jarañ yeeg yabooy yéeg ton yi ak kalamaar yee yóbbu seen bopp yi ñii ba ñu wàccee Europe lañ leen waroon a jël yóbbu leen psychologue waaye dañoo wàcc Europe topp xaalis bi gaal kenn du ci jaar def ci huit jours wala quatorze jours soo wàccee sa bopp du normal soo koko ku xool xam ne normalul yow yow fer lañ la wan yow fer lañ la wan ak sër nga génne kooy ak soko ni nga nee da nga muus soko ni nga nee da nga am personne da nga da nga yeewu soko ñu wan la sër ak fer nga génne kooy yow bu ñu la wanoon data xanaa da ngay juutu man ba ma joxee sama numéro bi ba tey soko dugal ko ci tiktok bii di jaay sama jaay sénégalais yi jël ko di ma ci woo amul benn sénégalais bu ma wuyu yoon yónnee nañ ma data ku tudd awa moo jël data bi di borom copparet bi pare ku tudd Fatmata jël data bi di ko co bind ci Pape mbaay ma pare ay xale yu góor di ma wan koo yu jàdd koo yu lunk ko yu dëng ma ne leen katt leen ndayam bu dee samay taat ngeen di wër du ngeen ko gis maa leen gën a yeewu man caga yi daan dem ponti caga yi daan taxaw le maa leen daan jox ku ci nekk numéro bi ngay taxaw ñii ma naan leen taxaw leen numéro un ñii ma naan leen taxaw leen numéro neuf ñii ma naan leen taxaw leen numéro dix suñu cagatoo ba lënd